300 partis au Sénégal est-ce que yomb na pour financer ay partis politiques et bu boobaa askan bi nga xam ne y a des partis yoo xam ne ñeenti nit ñoo fa nekk est-ce que tous les parti yi nekk au Sénégal war nañ leen a mën a financer est-ce que budget Sénégal attan na loolu et ci ban fan lañ koy teg asu yow nga nga ci financement parti politique. xam nga fi financement parti politique c'est-à-dire Sénégal dafa am lu mu ci tëral ay loi gis nañ fi tout récemment bi parti euh, PASTEF bi ñu def seen levée de fonds coow lu si jug tout simplement parce que dafa am lu ñuy tere ay étrangers di ñëw di financer ay parti lu ñu ko utal comme alternative ay solution mooy mais est-ce que loolu yàggul am gars yi daan ko def ci suuf mais def ci suuf xam nga yooyu ku ko def ci suuf je pense que buñ ci buñ la tegee loxo wala boog ñu saytu ko ba xam ni dafa am loo doon def ci suuf ci suuf ak ci kaw a si yam dañuy yoon day dal sa kaw mais je veux dire que ni bañ ko bañ ko teree dafa am lu ñu fi teg mooy que ni état bu moo war a financer donc état moom moo war a financer loolu moom mooy yoon mais est-ce que état moom est-ce que l'État loolu zator laa bëgg mu tontu si est-ce que vraiment l'État du Sénégal est prêt à financer teg budget boo xamante ni c'est pour les partis politiques xaw ma nag ba xam yëpp parce que c'est pour les partis politiques est-ce que dinañ mën a financer yëpp wala dañ ci tànn yi nga xamante ni peut-être ñoom ñooy parti yi xam ne ñoom ñoo gën a am doole. wala coalition yi wala wala wala nu muy demee parce que <laughs> nañu na leen leer ni bu ñu tegul budget bu mel noonu en même temps de l'autre côté ñi ngi euh, favoriser. des étranges li ñuy bañ muy am li ñuy njoxtu muy am c'est-à-dire am ay euh, yeneen ñoo xamante ne ñoom ñooy ñëw di dugal suñu seen koppar si biir réew mi te loolu xam nañ lu mu mën a jur ëllëg dinañ dem ba suñu réew dootuñu ko moomati parce que dugal sa xaalis moom xam naa ne c'est sûr que di nga xaar peut-être mu am benn rentabilité ah donc euh, j'aimerais bien euh, Zator mu mu mu tontu ci ci mbir moom d'abord wax na dañu ñëw waxtaan man xuloo ma kenn tu as l'habitude de, ah. de caricaturer et ça j'aime pas du tout je suis fier d'appartenir au nawetaan j'ai beaucoup soo waxee dama lay wax suma xalaat mais non ay débat nawetaan vraiment c'est pas le bëgguma ñu am genre discussion boobu cela di Sénégal financement parti politique du fi lu bees ci dialogue bi bokkoon na ci question yi nga xam ne doon nañ ko fa waxtaanee tey parti yi mën ngemb la mhm. am na parti yoo xam ne ka ko jiitee sëñ bi la responsable des femmes Jabar Jala. loolu est-ce que c'est pas tout. <laughs> responsable des jeunes hommes est-ce que c'est pas tous les partis. non c'est pas tous les am na ay partis. mais dina yoo xam ne dinañ ne lii parti. bu c'est-à-dire xam nga li indi critère boobu. mooy ñi seq làng ga waxtaane ko xam nga tey équipe de football ñëpp xam nañ ne onze ñooy football gisaguñu onze bu football ak quinze amul il faut que ñu yegg ci waxtaan yi fu nga xam ne danañ teg ay règles d'abord li ma li nga li nga xam ne sax mooy lay won poids parti yi kañ nga gëj gis parti yu dem élection. benn amatul presque. amatul. coalition. mooy li xew. Mhm. xën na sax war nañu xool naka la ñuy defee ba am ay bloc. Mhm. yoo xam ne ñooy jàkkaarloo parce que su fekkente ne les gens peuvent euh, nekk ensemble ci opposition pendant des mois des années di waxtaan di bokk gis-gis di nasandoo di noccendoo ñenn ñi def di ko def la même chose ci majorité ñooñu war nañoo mën a xool naka la ñuy fexe bu doon benn say. pour mën a indi un projet politique proposé ko les population su boobaa ci la financement di yomb ndax su boobaa dinañ ne parti bi kat ñi ngay def pour am xaalis lan mooy sa siège formation militant yi mais parti yi def formation militant bëreetul bëreetul est-ce que amati ah, ah mais euh, mais mais xam nga yaa ngi wax waxu critère bu ñu taxawee retourné waat ci ci ci point boobu noonu euh, selon vous lan nga yaakaar ni loolu moo war a nekk peut-être critère yoo xamante ni moom la ñu war a mën a teg pour ñu ne ñii ñooy parti yu ñu war a financé ak yi ñooy partie yi nga xamante ni peut-être waruñu leen financer. parce que su xalaat mooy li koy clarifier loolu jeu bu mel noonu mooy ku nekk de ah man kat dama jàpp na tey jii maa ngi Benno Bokk Yaakaar falaa falaa nekk falaa gëm projet bi dañuy ànd ba 2035 kon nag war nañoo mën a xool nu amee benn direction politique nekk benn su boobaa ñu xool dayo bi ci wàllu élection am nga nangami député wala am nga nangami maire su cet base là. ñu mën laa jàppale mais bu dee nii nii nii système hmm. bi nii. xaj bakay bu subaa ma créé parti. non moom euh, daan dafa mel ni mer mer mer ngem moo est-ce que loolu tamit jël alalu réew mi financé ko ci ay parti politique xel nangu na ko. non man damay wax toujours ci débat boobu. Hmm. man gëw ma financement parti politique yi. pourquoi parce que ma gëm ne du dem. du dem pourquoi parce que duñu mës a tolloo doole parce que dañoo nekk ci réew moo xam ne boo nekkee président de la république dafa am caisse noire bu ñu lay jox. boo xam ne la neex def ci te da ngaa bokk ci parti amul luñ la ciy contrôler dañ lay jox une dizaine de milliards par an. huit milliards. huit milliards mm-hmm. par an. yoo xam ne yow dañ naan la bu la neexee may ko bekkaay bay kon kay bu la neexee may ko sa parti non attends c'est important xam nga il faut ñu waxante dëgg donc déjà dès la départ rek doo la tolloo. Mm-hmm. parce que moom bu fekkoon ne dañ ko encadre comme dans certains pays. ak ñi ñuy financé si suuf. waaw may ma ma ñëw. bu fekkoon danañ ko encadre mais yow bu ñu la joxee ay milliards loolu la neex mën nga ko ca def te du mujj fenn ñaareel bu élection amee ñi ànd ak yow dañuy jël otey état bi di dem di campagne ñëpp di ci teg seen bët te kenn du ci wax ñu jël carburant état bi di ko dem campagne ci. yaa may dégg donc moyen yi président de la république. moyen non moom laa lay wax cest comme moyen mënuñoo yam. man gëwuma ni mën nañoo fexe ba def benn kii bu parce que bu ñuy wax financement bi mooy ñu fexe ba bu ñuy départandoo ñu yam ñu tolloo doole mais loolu mënul nekk parce que dafa am koo xam doole ji moo ko yore kon nag léegi te kooku yore doole ji ñu boo bëggee def sa financement par exemple comme exemple bi mu joxe sànq euh, Pastef par exemple bi mu bëggee def financement ñu tere ko mais Obama gis nañ ko fi américain yi financé campagne pourquoi xam nga man d'accord naa ne war nañoo vérifier ba xaalis boo xam ne ay sénégalais joxewuñ ko Uh-huh. sénégalais nag du ñoo xam ñi nga dëkk fii de parce que ñoo xam sénégalais d'ici et d'ailleurs les sénégalais de la diaspora ak yi nag diaspora hmm. tant que ñun suñu la ñun sénégalais yi man damaa gëm ni sénégalais yi sax ñoo war a financé nag parti yi xamul tax hmm. c'est vrai que nag bu ñu ko waxee dafa am parti yu mu ne buñ buñ nee lancé nañ seen campagne parce que euh, parce que ñu ci bëri buñ cay bokk seen poos ay tax ñu cay bokk waaye demuñu bopp di joxe dafa am parti yoo xam ne buñ leen woon dajale nañ seetaan rek ñu joxe par fukk ak ñaar fukki téeméer ak ñaar téeméer mun ñoo dajale vingt millions. waaw léegi nag kon man jàpp naa ne bu ñu amee un système boo xam ne si on permet aux sénégalais lépp leer lépp jaar yoon sénégalais yi fi ñu far ñu am droit joxe ba seen alal pour dooleel kooku pour mu dem au pouvoir man pour man loolu baax na donc mais bu ñu nee nañuy nañuy financer les partis tamit nu ñu ko mën a defee ak nu ñu ko mën a defee parti yi nga xam ñoo nekk dans l' opposition tey ki fi nekk dañu moom leen a bëgg réduire à leur plus kon man jàpp naa ne mun ñoo fexe ba am doole ba tolloog moom kon man sa faux sa débat. Ah. pour moi c' est un ak nu ko mën a defee. nu ko mën parce que parti au pouvoir moo ëpp doole. moo boo dee xool. moo ëpp doole ci alal moo ëpp doole ci alal parce que alalu askan wi lay def ñoo daan financé sax seen parti. cotisation dafa am lu lu ñu war a dañu war xool comme les grandes démocraties. mais parti yi nga xam ne mënuñu def 5 pour cent. waaw ñu éliminer leen pour cent 5 ah pour cent xam nga ñu war a génn ay xaalis di leen financer <laughs> loolu tamit du dëgg. ay parti juróomi nit la. waaw waaw. ayam naa parti yoo nga xam ne sëñ bi gën a non. et puis ñu boole koog troisième mandat bi ndax dagan naam daganul. ah ben ah. <laughs> non. <laughs> loolu moo